alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad saxani li watani bi nafa ma kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen baal àq di leen baalu àq ci bis tedd bi di bisu ajjuma bi nga xam ni mooy sangu bisi di ñaan fu waay man di nekk di ab jullit ak noo fa man di nekkee rek sun boroom saxal la ci yoonu siraatal mustaqima te mooy yoonu bu jub boobu lépp loo xam ni tooñ nga ko wala ñu def ko suñu digganteeg sunu boroom ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ni tooñ googu du ko yokk du ko wàññi mu jéggal ñu ko zaahir ak baatin ci xiriñ ci lu baax ñuy fàttalante ci lenn ci loo xam ne jullit bu nekk donte jamono bu nekk nga am loolu la ca fàttali wala boo ko xamutoon ñu xamal la ko dana am solo ci jullit bu nekk muy nit ku nekk laaju ci wàllum diine ci kaw loolu nag ku tedd ki ba tey mi ñuy fàttali di ñu xamal di ñu jàngal nit ki su fekkee daa nekk ci mbirum julli léegi léeg njuumte ya ko ciy gaar ak na mu koy defaree ak ya ca aju fii lim ñuy xamal mooy képp koo xam ni danga ñëw ci julli fekk ñu raw la ca julli ga moo xam ci jàkk la wala daa wala fekk nga kuy julli nga ànd ak moom ci julli ga waaye raw na la nga xam ne la nga jot ca julli ga sax motut ab ràkka nga xam ni fekk nga ko ci ràkka bu mu jëm mu rukkoo ca ba siggi te dañ ni bépp rakka boo xam ne fekki woo rukkoo ba rek doo ko boole wala sa julli boo doon fay boo jógee da nga ko war a yow nag da dikk fekk tey ñu rukkoo ca rukkoo bu mujj nga xam ne kon julli gi fekki ca dara lu dul sujjóot ja xëy na wala taaya ja su boobaa dañ naan la ko julli gi fekki woo ca dara comme fekki woo ca lu matub rakka ku tedd ki nag nit ñëw su fekkee daa am ku lay jiite ca daf laa rawee julli gi lépp àndoog moom lu matub rakka léeg-léeg kooku jiitale mën naa am defoon na ci njuumte ci julli gi su paree war a sujjóot ñu bàyyi xel bu baax a baax lim ñuy jàngal fii su fekkoon kooku nga xam ni moom daa defoon ci njuumte ci julli gi luy waral xab la ndax xëy na wàññi woon na ca ku wàññi dañoo wax ni ku wàññi ci julli gi loo xam ne du farata ku wàññi ci julli loo xam ne du farata dañoo wax ne boo jullee ba sëlmal des dangay ngay sujjaataan ñaari sujjóot taaye waat daal sëlmal su fekkee da yokk ci julli gi nag ak loo ci mën di yokk moom moo xam farata wala lu mu mën di doon waaye teyoo ko su boobaa dañuy wax ni boo sëlmalee da ngay sujjut ñaari sujjut taay war daal di sëlmal léegi nag yow da ñëw fekk ñu raw la julli gi lépp bi ngay ñëw ci rakkaa bu mujj la ca fekk ne imaam si gi cëru kooba kon julli gi amoo ci dara léegi imaam moomu nag dafa waraloon dafa defoon ci julli gi luy waral sujjut kon yow moo mu di soog a ñëw da naan bu imaam dee sujjut bul ànd ak moom ca sujjut yooya bu imaam dee sujjut kon waroo ca ànd ak moom ndax amoo ci julli gi dara kon julli bu fekkee dagoo ca dara amoo ci lu ma topp rakka su imaam di sujjóot moo xam xabla la wala baxda bul àndak ak moom yow toogal di ko xaar ba mu sëlmal nga jóg commencé sa julli moo tax ku tedd ki ne wa mudrikun min rakaatin aqalama imaamihi wa kaana masbaxun shara in sajada xabli aw baxdi yu mawhoo fa battala salaatu nita sax dañoo wax boo ànd ak imaam moo xam yokk la wala wàññi imaam di sujjóot nga ànd moom ci sujjóot yooyu ca amoo ci julli ga lu matub rakkaa nga continuer julli boo paree su boobaa dañuy wax ne sax si julli baaxul kon ñu bàyyi ci xel képp koo xam da ngaa dikki fekk ak julli ñu rawee la julli su imaam juumoon ci julli ga ba ci sujjoot moo xam xabla salaam wala bada salaam bul ca ànd ak moom bàyyil nga jóg yow commencé sa julli léegi nag su fekkee ne bi ngay ñëw ci julli gi ànd nga ci dab nga ci julli gi ak imaam lu mat ab rakka moo xam imaam la wala ku doon julli daal nga ñëw nekk ci ginnaaw mu jiital ndax mooy sa imam ba tey moo xam ci jàkk la moo xam du jàkk kon su fekkee nag yow ànd nga ak moom lu mat ab rakka donte benn la foofu moom am na ak tàqale dañoo wax ni su fekkoon moom la ba nga ñëwagut wala sax bi nga àndeek moom daa juum ci ànd moom lu mat ab rakka su fekkee daa juum buy sujjóot bu julli gi jeexee bu dee xabda salaam mën nga caa ànd ak moom ndax xabda salaam mooy ñaar rakka yi ngay def avant ngay sëlmal bala ngaa sëlmal ñaar rakkaa yi ngay def loolu lañ tuddee xabla salaam su bu fekkee ànd nga ak imaam lu matub rakkaa moom su boobaa suy sujjóot sujjóot boobu mën nga caa ànd moom waaye bu dee bëri salaam nag moom da ngay bàyyi yow ba fay lim lim la rawee ba pare nga soog ko sujjóot lu mat a bàyyi xel su doon de salaam ndax xam nga bëri salaam bala nga ko sujjóot day fekk nga sëlmal ci julli ba julli gi jeex nga soog ko sujjóot kon yow mënagoo sëlmal ndax yow euh, am na lu la raw ca fayagoo kon mënoo sëlmal ndax bala bëri salaam bala nga koo da ngay sëlmal kon su boobaa ba de salaam boobu moom danga koy bàyyi ba indi la la imaam rey woon ba pare ba sëlmal soo ko sujjóot waaye bu ci ànd ak imaam kon ku tedd ki nee na mbir yi noonu lañ koy defee su fekkee nag def nga lu wuuteeg lii su boobaa nee na sa julli yàqu na maanaam su fekkee da ngaa ànd ak imaam lu matub rakkaa imaam sëlmal nga war a jóg fay fekk imaam daa juumoon su fekkee ne juumte boobe xabla salaam na nga xam ne da koy sujjóot avant muy sëlmal mën nga caa ànd ak waaye su fekkee ba de salaam la nga xam ne sëlmal ba pare soo ko sujjóot su boobaa yow su ñëw caa ànd ak ndax yow sa julli da ngay bàyyi ba mottali ba pare soo mottali ba pare loolu njumte boobu imaam defoon nag doon ko sujjóot yow boo sëlmalee ba pare nga daal ah, fekkee nag ba tey imaam moo la jiite wala am ku la jiite nga ànd moom ci ak julli waaye am na lum la rawee bi mu sëlmalee nag nga jóg di fay bi nga jógee di fay nag yow bi nga jógee di fay nga am loo xam ne da nga koo juumal sa bopp lu mat a bàyyi xel la yow imaam nga àndal di julli imaam sëlmal waaye yow bi nga jógee di fay li la imaam reye woon nag nga daal cee juum su boobaa loolu neex naa la jënd su boobaa day mel ni yow képp boo doon julli boo juumee ni nga koy defaree su boobaa loolu noonu nga koy defaree masan bu fekkee da ngaa wàññi boo doon julli dong boo wàññee da ngay sujjóot xabla salaam mooy bala ngaa sëlmal ngay sujjóot ñaari sujjóot su fekkee da yokk ba tey day mel ni yow rek boo doon julli boo yokkee da ngay bàyyi ba sëlmal daal di sujjootaat ñaar sujjoot kon loolu moom yoonu imaam nekku ci ndaxte dafa am lu mu waxoon ci ginnaaw mooy su fekkee da ànd ak imaam daal di juum imaam moo koy gàddu su fekkee da ànd ak imaam boo juumee doo sujjoot yow maamun imaam mooy gàddu juum boobu doo ko sujjoot waaye bu imaam juumee moom doonte juum mooy du tee buy sujjoot da ànd ak moom loolu loolu ma tax xam na fii li muy wax nag mooy bu fekkee ne yow imaam nga àndal ba imaam sëlmal léegi mu am lu mu la rawe woon nga jóg di ko fay nag daal cee juum su boobaa day mel ni yow képp boo doon julli na nga koy lijjante noonu nga koy lijjante kon ku tedd kii yu am solo yooyu lañuy fàttali ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax ci mbirum julli ba tey alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax jullit bu nekk li nga xam ne war na koo war koo moytandiku ci digganteem ak mbokki jullitam alayhi salaatu wasalaam nañu waaye rikki waaye yéen jullit ñi bu bañante ak yaatu ci suñu biir waaye du jikkoy jullit jullit bu nekk jikko ju mel noonu su nekkee ci yow war ngaa fexe ba mu denc ci yow mooy nga gis sa mbokkum jullit am dara loo koy bañ waaye alayhi salaatu wasalaam nee ñu bu leen iñaanante mooy nit ki am dara nga koy iñaane wala nga koy soxate alayhi salaatu wasalaam nee na loolu du jikkoy jullit bu leen ko def waaye lam ca teg mooy bu leen wanante ginnaaw mooy ku nekk ci jafe-jafe rikk waaye li ma leen di ñaan mooy yéen jullit ñépp na ngeen ànd jàppale ko ba jafe yooyu dañ loolu dana wuuteeg nag koo xam ni moom bu sañoon ci jafe-jafe ngay nekk ki nga xam ne moom bu sañoon ci jafe ngay nekk kooku moom xalaatut ku nekk ci jafe-jafe wala nga nekk ci ay jafe-jafe la ca jéem a génn ca mel na ni ñun ñii tuddoo ay jullit ndax noonu laa ko mën a waxee ndax mbir moom soo nee moom nga gëm di ko doxee ñaar rek moo mën a nekk nga nekk ca ñu xam ne moom nga wala nga koy mbubboo nekk ci leneen mooy jukkee naa feq ca loolu mel na ni moo gën a yaatu ci suñu biir waale alayhi salaatu wasalaam li mu ñu wax mooy fu ngeen man di nekk nekk leen ay jaamu yàlla nekk ay mbokk yu mel ne yu bokk ndey ak baay ci yenente jàmm ak defarante jàmm nga am lam ca teg mooy dañuy daganul ci benn jullit muy mere mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan lu dul nag loo mu ko meree daa nekk ci mbirum diine mu bëgg mu bàyyi ko su boobaa moom lu mu yàgg-yàgg li fekk waaja a bàyyiwul lu bon loolee mu def mën nga ko ca amee war ko ginnaaw waaye daal alayhi salaatu wasalaam nee na sa intérêt bopp wala loo xam ne jullit nit ki dala koo tooñ dëgganut nga ko cee mere lu ëpp ñetti fa waaye li ci gën a doy waar mooy alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni yàlla sunu boroom bisu altine bu nekk ak bisu alxemes bu nekk day ubbi bunti àjjana jéggal bépp jaam boo xam ni mu ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla ca bokkaale bu yàlla lu dul nag ñoo xam ni ñaari nit ñoo xam ne dañoo meroo ca duñ tuddante ñooñu moom suñu boroom danaan leen ñee de duñ bokk ci jéggal gi bàyyi leen fee bàyyi leen fee ñu toog ba keroog ñuy juboo kon mbokk yi jot na sëkk ab jullit fu mu nekk wara xam na muy doxalee ak mbokkum jullitam waaye jaaduwut ci yëlluwut ak lu la sa mbokkum jullit di mën a def ak lum la mën di tuumaal ak lum la mën di wax jéggal ko jéggalul ko yàlla ba yàlla génn ci moom jikko ju ñaaw jooju waaye jaaduwut nga di ko ca wan ginnaaw wala nga di ko ca mere lu ëpp ñetti fan alayhi salaatu wasalaam nee na jaaduwut ci ab jullit di mere mbokkum jullitam lu ëpp ñetti fan léeg-léeg nga dégg nit ni diw de ba ma ko gëjee dégg tudd kenn xamul kañ la wala mun la na at wala ñaari at wala day jaar nii ma jaar na la ku nekk nag jàpp foofa yaakaar ne yaa nga ci sa fulla yaa nga ci sa fayda yaakaar loolu mooy dignité wala loolu mooy personnalité wala nga yaakaar nit dëgg-dëgg daal noonu la war a doxee fekk ni jullit du doxe noonu donte dan laa tooñ su jaroon ki la tooñ nga neexal ko ngir ngeen juboo sax def ko du ñàkk fayda waaye jëfi ak jullit la nit ki foofu la war a nekk moo tax aleyhi salaatu wasalaam ni ñu wa koonu ibadallahi ixwanan wala li muslimin an yahjura aqahu fawqa salaas waaye rik nekk leen ay mbokk comme ni ko alxuraan waxe innamal muminuuna ixwa jullit ak jul mbokkum jullitam amul dara dara dara daray àdduna lu tax ñu warante wala ginnaaw rawatina ci ñàkk fayda yoo xam ne nag intérêt yi bopp lay wala wax boo xam ne daanaka du dara wala sax ay tuuma la dañ lay tuumaal ñaar moo mën a nekk lin la tuumaal benn nga def ko wala defoo su fekkee yaa ko def kon su fekkee loolu ñi nga xam ne moom la tuumaal yaa ko mooy comme yaa ko def leer na la sa digganteeg sa borom waaye nag mbokk mi bu dee defoo ko kala moom soo ko mënoon a jox àdduna ak la ci biiram danga ko war a def ndax lan ndax lépp loo xam ne ay bàkkaar la dana ko dind ci yow ba mu set wicc kon kooku boo ko mënoon a neexal loo man di yor sax su boobaa da nga ko war a def kon mbokk yi tuuma dëgg la su na ko defee mën naa metti ci kaw waaye boo xooloon ci biir daanaka du maanaam du looy nekk loo xam ne sax da koy métti ndax lan benn nga def ko wala defoo su fekkee yaa ko def sa diggante ak sa boroom xam nga kon ku koy wax jëru mu lay naqari ndax yaa ko def waaye su fekkee ni defoo ko moom en tant que jullit na nga xam ne ak yokkute ak njëgguli bàkkaar képp nga cee am ci jullit bu nekk loolu la bëgg kon na ngeen gën a bàyyante xel suñu diggante bu baax a baax ba tey xale salaatu wasalaam dañu fàttali nit ku nekk wala jullit bu nekk nan la war a àndeek ñaari kilifaam ca mooy ñaari waajuram moo tax alayhi salaatu wasalaam mas wax ni waaye rikk bu leen wax lu ñaaw jëmmi ci seeni waajur maanaam bu leen saaga seeni waajur mel ni dafa am ku ni ko nit moom nan lay saaga ñaari waajuroo mu ni ko waaw mooy nga wax waajuru jàmbur lu ko naqari mu wax sa waajur lu ko naqari kon nit ku nekk jàppal ni boo waxee waajuru jàmbur lu ñaaw rek jàppal ni yaa ngay sànni sa waajur ndax soo ko waxee mu delloo la ko même bu la ko delloowu tamit jàppal ni mucc ca yombut kon nit ku nekk war naa fexe ba waggar ba làmmiñam wi du ci wax dara lu aay rawatina nag mu koy wax jëmale ko ci waajuru jàmbur moo tax alayhi salaatu wasalaam bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy nit ki di wax wax bu ñagas jëmale ci ñaari waajuram rawatina lu mel ni aw saaga waajur nag dafa nekk loo xam ni doomu aadama bu nekk war ngaa fexe ba nekk ñoom ba am seen gërëm ndax lan ndaxte bunt bi nga xam ni jullit bu nekk ëllëg yamal xayaam fa la bëgg a dugg muy buntu àjjana na la leer na say ñaari waajur suñ kontaanu ci yow ba nga am seen gërëm mënoo muusaka maccat ba mën a dugg bunt àjjana boobu ci làqu sa ñaari waajur seen gërëm loolu nag ku nekk waroon cee dafa am ñett ñoo xam ne alayhi salaatu wasalaam da leen doon nettali ni dañ doon ndox ba mujj yàgg ab taw daal di ñëw asamaan si taw mu nekk ñetti nit lu mat a bàyyi xel bi mu nekk ñetti nit ñooñu bi asamaan si di taw ñu gis lu mel ni doj wu yaatu ñu koy wax am xunt nga xam day mel ni doj woo xam ne day mel ni ab néeg biir gi boo fa duggee day mel ni ab néeg ñu dugg fa ni dañuy seelu maam dugg fa ngir taw ba bu saw bi arrêté bu taw bi sawitee ñu mën a génn dem waaye gis nga yàlla ak i mbiram ban duggee ca loolee mel ni mu ca doj woowa ak ngelaw la nam bëree lu mel ni enn xeer jóge ci kaw rek doj wi daal wàcc ci bunt bi njaarewu ndaat koy sakk nga xam ne mënutu ñoo génn alayhi salaatu wasalaam moo ñuy nettali ñett ñooñu daal di tëju foofu mënuñoo génn lan moo ciy pexe ci digg àll ci lii ba ko yonte bi netti léegi ay mat na junni at ak lu tegal du téléphone du dara kon ñooñu amuñu mel ni pexe léegi nag ñoom ñoom ñett ñoo ñu tëju foofu ñu ne ah léegi lenn rek moo ci des nan ñaan yàlla yàlla xett li waaye lan waxante mooy dan ni ku nekk dangay xool jëf ja nga xam ni moom mas nga koo def ca nga defoon ko rekk ca yàlla képp tax nga ñaan yàlla xett la ci barkeb jëf jooju ngir ñu génn fii ñu nekk ñoom ñett kenn ki daal xalaat ni man de mas na ma am koo xam ni doon naa ko jëloon naa ko mu may liggéeyal bi nga xamee ni jël naa ko mu may liggéeyal bi ma liggéeyale ba liggéey bi jeex ma koy fay mu mel ni daal la ma ko doon fay xëy na euh, jubuwu ko nanguwut a jël fay ga mu daat ni ma fay ma sama alal ma ne ko sa alal la mu ngi nii nanguwu koo jël mu daat mu daat fay bàyyi alal ja daal di dem léegi bi mu fi alal jooja dem nag man damaa jël alal jooja jëndal ko ci ay nag ak yu mel noonu di ko sàmm di ko sàmm ba mu bëri ba benn bis nag mu jékki-jékki jaar fa ni ma waaw sa waay yow ba ma la liggéeyee ba léegi fayugoo ma de ma ne ko alal jii ngay gis ak sàmm bee ngay gis lépp de sa alal la jël ko mu ne ma bu ma reetaan waaye sama alal laa bëgg nga jox ma ko mu ne ko waaw li ma la doon jox na woo koo jël dama koo jëndee ak jur di la ko sàmmal ngir bëgg heure boo fi jaaraatee ma boole alal ji lépp teg ko sa waa ji daal di yéemu daal di jël alalam dem mu ne bu fekkee nag yàlla loolu dama ko defoon ca sa jëmm képp tax maa ngi lay ñaar nga xettali ñu ñu mucc ci fii ñu dugg bunt ba doj ba daal di xaw a ubbeeku tuuti keneen ka ni yow suñ boroom am na sama doomu bàjjan boo xam ni moom góor la mu ne am na sama doomu bàjjan boo xam ne jigéen la woon ma bëggoon a def ak moom ak mooy mu bañ ni ma boo ma joxut xaalis bu toll nangam man ak yow duñ mooy yàlla ma lijjanti loola ba war ko koo dem def jox ko ko ngir bëgg ñu def caaxaan yooyu ba ma demee ba nar a def moom caaxaan yooya mu ne jigéen nga ni ko ragalal suñu borom ca bul def loo xam ne araam la ma ne ko fa ñukk bàyyi ko fa yow yàlla nag su fekkee ne loola dama ko bàyyoon ngir sa jëmmu képp képp tax maa ngi lay ñaan nga musal ñu ñu génn fii ñu nekk mbir ma daal di xaw a yaatuwaat tuuti waaye ba tey mënaguñoo génn mu des kenn kon nga xam ni ak mbon fi mu toll ci suñ jamono yi nga xam ne jaral na lii bu njëkk la amoon waaye gis nga ba léegi mi nga am ak mbon jaral na la nga jël xaalis bu weex tàll dugal ko ci ngir def ak mbon nga xam ne loo xam ne yow da nga ko waroon a def ñu fay la sax bu fekkoon ci xalaat doon nga waroon def ñu fay la waaye yow doo ko defati yow mi ko def sax yaay mujj far di fay lan mu nekk lu bon nga ci am ca bàkkaar boo pare waaye keneen ka moom dani yow suñu borom de man amoon naa ñaari waajur yoo xam ni dañoo màggatoon ak ay xale yu ndaw léegi nag dama daan def su ma demee ci àll bi jël jur gi ma yor ratt meew mi daal di indi jox sama ñaari waajur yooyu ñu naan ba pare ma soog a jox samay doom benn bis nag ma xaw a tardé nekk ci àll bi ba xaw a guddee ñëw bi ma ñëwee fekk sama ñaari waajur yooyu di nelaw waaye sama doom yi moom nelawul ñu ngi toog di xaar bi ma ñëwee fekk leen ñu nelaw ma tiim leen ndax xalaatuma leen yéen ndax samay waajur ñu ngi nelaw ca sama doom yi. ñi ngi taxaw bëgg ma jox leen ci meew mi ñu naan ndax bala ma leen a jox sama ñaari waajur ñoo daan naan ba pare waaye ñi ngi taxaw di jooy ci guddi gi ngir bëgg ma jox leen noonu laa taxawee téye meew mi sama doom yi taxaw ci samay tànk di jooy daanaka ba fajar jot sama ñaari waajur yi soog a yeewu ma jox leen ñu naan ba pare yow yàlla su fekkee loolu dama ko defoon ngir topp sama ndigalul ñaari waajur ak jox leenu kilifteef képp ca sa jëmu ji tax su fekkee loolu dama ko defoon ngir yàlla maa ngi lay ñaan nga xetti li ñu mucc fii doj wa daal di daanu ñu daal di génn ñoom ñett kon mbokk yi waajur dafa nekk loo xam ni kenn waru ko caaxaare ba tey alayhi salaatu wasalaam nit ñi nettali ci Cheikh Xadim jàngal ne ko nee na siraat am na juróom-ñaari taxawaay nga xam ne nit ku nekk da nga fa jaar ñu laaj la nga soog a jàll su fekkee tontu nga liñ lay laaj nga jàll su fekkee tontoo ñu ba max la nga dugg sawra yam ci yàlla musal waaye Cheikh Xadim nee juróom-ñaari yooyu ba ci njëkk boo fa taxawee dañ lay laaj ndax gëm nga yàlla soo nee waaw nga jàll boo niwut waaw ñun la kon taxawal ngi mel ne rek nga yor sa oto jaar ci tali bi taseeg police bi am na kayit yu ñu lay laaj soo ko amee danaa la jàllal waaye boo ko am boobu danaa la droité mënoo dem ba tey noonu la demee des boo fa àggee dañ lay laaj ndax daan nga julli soo nee waaw ñun la jàllal soo niwut ñu ne xëcc leen mu dugg ci biir sawar faneen fa ca boo fa àgsee dañ naan la ndax bi nga amee alal ca asaka war ca daan nga joxe asaka boo nee waaw ñun ne bàyyi leen mu jàll soo newul waaw ñun ne xëcc leen mu nee na ñeenteel ba soo fa accès dañ naan la ndax yow ba nga mënee woor Ramadan daan nga soo nee waaw ñu ne bàyyi leen mu jàll soo nee déedéet ñu ne xëcc leen mu dugg ci kàmbi sawar Cheikhul Khadim nee na ca des ca siraat ku nekk da nga fa jaar soog a dugg àjjana booy dugg àjjana soo mënta dugg àjjana yam sawar ndax ci kaw sawara la jaar jaar ba ci de Cheikhul Xadim nee na boo fa accès danay laaj ndax bi nga mënee aj ak umra ci am alal ji ndax defoon nga ko ci am wér gi yaram gi soo ne waaw ñun la acu jàllal su fekkee defoo ko ca mënoon ko ñun la ci biir sawar waaye ku tedd ki Cheikhul Xadim nee na juróom-benneelu euh, ba muy taxawaay ba foofu lan la fay laaj ndax daan nga jàpp muy sangu farta na mu waree ak jàpp soo nee waaw ñu ne accu kon man ngaa jàll wutil àjjana soo nee déedéet ñu ne xëcc leen mu dugg sawara mu des benn mbir nga xam ne soo fa jàllee rek àjjanaa ci des waaye boo fa jëlu donte yi jiitu yépp baax na su boobaa sawara nga jëm loolu lu mat a bàyyi xel la loolu mooy lan mooy ndax daan nga topp sa ñaari waajur nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne bunt bi su fekkee ne ajak julleeg lépp daan nga ko def na la ko yàlla digle ci sa ñaari waajur tegoo leen fa nga leen war a daan teg ñu nga laaj la nga xam ne boo tontoo rek dugg àjjana ñu laaj ndax sa ñaari waajur nga leen topp na nga leen war a toppee soo nee déedéet la nga defoon yàlla xoolatu ci dara daan xëcc leen mu dugg biir sawar kon mbokk yi suñuy waajur nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax du ay caaxaan ku tedd ki dañuy nettali ba te nettali bu yéeme ndax dañu yonte yàlla Muusa nga xam ne bokk na ci yonent yi yàlla gën a garaate jox leen daraja da daan dafa nekkoon fenn di ci wenn doj ci jaamu suñu borom yonte yàlla Muusa bu mujj yàgg rek yonte yàlla Muusa mel ni dafa dégg lu ko woo ne ko wàccal dem ci ron doj wee soo demee da nga fa gis kiimtaan yonte yàlla Moussa de ab yonenteel daal di wàcc bi mu demee xool ma mooy comme li ma waxoon léegi doj la woo xam ne biir gi de mel ni ab néeg bi mu demee yonte yàlla Moussa daal di dugg foofu fekk fa benn waay boo xam ne xale bu góor la ci nin ko mën a waxee mun xulaamun yarka'u wa yasjudu nekk fa di julli ak di jaamu yàlla bi yonte yàlla Moussa ñëwee fekk fa waa jooju mu daal koy nuyu. bi mu ko nuyoo waaja daat koy delloo am nuyoo ni ko yow yonte yàlla musa dal ak jàmm yonte yàlla Moussa ni ko waaw lan moo la xamal ni man maa yonte yàlla Moussa mu ne ko yàlla sunu borom moom ko xamal kon kooku am na fu mu tolloon ci digganteem ak sunu borom moom mi xam ne nit ñëw yàlla xamal ko kii ñëw mooy kan ne ko yàlla sunu borom moo ma xamal ne yow yaa yaa yonte yàlla Moussa mi yàlla mi nga xam ne toog naa fii génnuma fi di ko jaamu juróom ñaar fukki at maa ngi toog fii di fi jaamu yàlla ci musu mo fee génn juróom-ñaar fukki at nga nekk ci ab béréb yonte yàlla Moussa donte ab yonte mu ne ko waaw su foofu nga nekk juróom fi jaamu yàlla lan ngay lekk ak lan ngay naan ak lan ngay sol loolu fan lay jógee mu ne ko loolu lépp de mi ngi jóge ci yàlla mi nga xam ni bët du ko gis ca kenn mun tax xalaat ba xam yàlla mooy kan yàlla li may lekk ak li may naan ak li may yittewoo lépp mu ngi jóge ci suñ ci yàlla directement xam nga ni kon kooku am na dara bu mu am fa suñu borom yonte yàlla Moussa ne ko waaw waaye nag waa waa ji ne ko waa li ma bëgg nag mooy yow yonent yàlla Moussa damaa bëgg nga ñaanal ma suñu borom mu boole ma ci waa àjjana loolu dana yéem ñu bëree bëri yow yaa ngi ci ab béréb juróom fukki at di fa jaamu yàlla te li ngay lekk li ngay naan li ngay sol lépp ci suñu borom day jógee ab yonente ñëw nga ne ko li ma bëgg mooy nga ñaanal ma ci yàlla mu boole ma ci waa àjjana yonente yàlla Moussa daal di génn bi mu génnee daal di bëgg tàllal ay loxoom ñaanal yàlla waa ji mu bokk ci waa àjjana waaye bi mu ne jëyi ay loxoom bëgg koo tàllal rek moom yonte yàlla Musaa de dafa dégg ak kàddu gu ni ko déedéet kooku bu ko ñaanal yàlla dara ndax mu ngi bokk ci waa sawara ah yonte yàlla Musaa daal di demat ci waaja di jooy ndax yëf yi da koo jaaxal ca donte ab yonente la muy jooy di jooy di jooy ba mujj yàgg waaja sax moom wëlbatiku moom it di jooy yonte yàlla Musaa ni ko waa yow lan nga def ndax sa mbir nii nga nekk jaamukatu yàlla ak daraja ji nga am ci yàlla ma lay ñaanal suñu borom nga bokk ci waa na bi ma tàllalee samay loxo rek ñu ni ma jëru ko ci waa sawar nga bokk lan nga def loolu daal bëgg naa koo xam lan la ko waaj a tontu ku ne war caa bàyyi xel waaj xam nga lan la ko tontu néew ko damaa am ak kenn jafe-jafe de nee na ko maa ngi jaamu yàlla bàyyiwuma farata bàyyiwuma sunna lépp maa ngi ko def waaye nag damaa masa mooy sama ñaari waajur ñàkk a dégg sama ñaari waajur de. moo ma yóbbee sunu boroom teg ma nattu bi mu ma teg ah loolu mbokk yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax bi mu waxee loolu léegi nag mu ne ko comme sunu borom maa jéggal ndax mooy gi ma mooy sama ñaari waajur ba bind na ma ci waa sawar du deñ léegi yant yàlla Musaa xam nga lan laa lay ñaanloo yàlla mooy sama jëmm ji na ko def jëmm ju rëy rëy ba nga xam ni képp ku nar a duggati sawara du fa duggutu sama jëmm ji fee sawara la ñeneen ñu waroon a dugg sawara ma duggal leen ko sawara loolu la ko waaj wax bi mu waxee loolu yàlla Moussa yonte yàlla Moussa daal di génn bëgg ñaan lool bëgg ko bëgg yàlla bëgg a ñaanal ñaanal ko loolu yàlla sunu borom bi mu ne jëyi ay loxoom ci kaw asamaan sunu borom ni ko jurul ngay ñaan boole naa ko ci waa àjjana ndax ak mbaaxam ak yërmandeem ak nangub dogalam kon mbokk yi yaxfirullahu li wa lakum wa li jamiil muslimin amin الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني